salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal ah, comme ni ñu koy defee chaque jour yendu leen kër yaama tey alxames dañ leen a dalal benn ndaanaan bu mag a mag mm-hmm. ndaanaan boo xam ne ndaanaan bu yëngu ci ay yëf mais ba tey ndaanaan boobu damay bàyyi yaa awa mu nuyu leen wax leen ban ndaanaan lañu dalal tey ci biir kër gi yaa awa waaw asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum Sénégal ah, asalaamaaleykum ñi nga xamante ñoo safoo seetaan seen TV rawatina ak suñu kër gi nga xamante mooy kër yaama tey nag bas bëri bagage lañ fi dalal borom Mbàkke xale baa ngi noonu nee tey kër gi dina mel ni mhm. tumba bas mi ci ah. bool bas mi ci mbëng-mbëng mi bas mi ci cóol mi bas mi ci lépp kookooy bas bari bagage mhm. borom Mbàkke Bawol bas tey lay am ci kër gi mu fas yéene yendoog ñun yaawo ñu fas yéene koo yaatal du mi ngi nii toog dañ koy ubbi ba mu ubbee ko bas nuyul waa àdduna yaanu bool bi day nuyoo moom it. maa ngi jaar ñëpp. di wax jërëjëfu Serigne Bamba. waaw sama yaakaar tey ëllëg. di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal borom télé bi Bougane Gueye Dany. di ko baax taalibu Serigne Mbacke soxna loo boobu borom tey fak bàyyi laa Cheikh Maguette dan xarit loo. te damay wax ni sëñ Mbacke soxna loo ku mu fat doo fanaan biti. bugaan ca kaw ca kanam ci lu baax na moo dara dee su ko wax dal la koy waxal. waaw bugaan mhm. maa ngi nuyu ñëpp daal. waaw léegi Bas ginnaaw bi nga nuyoo bool bi xanaa ñu mën a nuyoo. waaw lépp ay nuyoo. ay raajax fii day toj raajax. dapp leen raajax. sa nuyoo am sa am na doole wàccee nga kër gi ba mu wàcc bool daan naa gis de gars yi daan ko tëggee nu ne mais bas nan nga mën a jële bool beeg. enseignement bi. kii yeeg yooyu di ko enseigné nii sa loxo yeeg yooyu. waaw mais ay doom buur géwél lan ndeysaan jam jàll mi jaaj maa sax ma na faal ko di jëng faan du mbeeg may sa faan yaay mbenn ndaw faal maa ngi koy nuyu mu doon yaay ju liggéey ju baax ju nu teete mm-hmm. man géwél laa aw ma daray géer mm-hmm. diggante jaaj ji xel ak sugeer foo ma dàq ma ñibbi fa. ma Matar Samba sama bàyyi ba. yal na ko yàlla yërëm historien wala woon bu mag. dama koo duppi fi ne nii man aar polyvalent laa yor. ngeen dëggee ma ni bëri baara mbay. yow tëgg naa bool taasu damay baara bay damay wax après dinaa dugg ci sëñ Mbacke soxna loo famille ñu ko jur. dina do dina dina. man aar polyvalent toog. ak bàyyi laat bi mu sol. waaw waaw. mais ñun tey Bass mën nañu xam tey yow capital bi ak fit bi ak lan moo la may yow pour nga poussé wu ci ci ci bool yi ak aar bi ak way bi fon bi ngay bi bi ngay bi ngay utiliser. waaw comme li ma la waxoon li ma tontu kii rek. loolu li ko waral mooy dama juddu ci géwël. nàmp ci géwél. mais xam nga bari na ñu ci géwél te duñ dégg. waaw te dégg moo am solo. waaw waaw dégg man nag loolu sama maam la dama ko doon dégg ci ba pare nit da ngaa war aussi osé ingé. xale bu ndaw laa nag ñëpp du ma ni Sénégal sax xam nañ ma nag d'accord waaye gëm naa ni moom fu ma taxaw bu ma nee der. Hmm. ku ma déglu da nga nangu. waaw der moom kenn dàqulu. waaw loolu moom suñu borom dogal na ko ci man. da ngaa fekkee fi mu defee der de ah. ah loolu der fii de gis naa ko moom. loolu am na li nga der lan moo la dugal ci lii nii géwél nga bien vrai que géwél nga parce que géwél yi ñii dañuy dem mu tëggi sabar ñi way ñi défilé yow nga ñëw jël taasu beeg bool beeg yooyu lan moo la ci xeer bi ci bool bi. waa bool bi ak taasu yi déggoo ma la aar polyvalent toog cu bu ma nee bëreet Baara Mbaye nga ni déedéet ma tëgg bool nga ni waa lii lu ma. Baara Mbaye yóbbu leen ko Baara Mbaye. parce que boobu ba léegi yaa ngi ci Baara Mbaye. ma ñëw dëgg bëgg yóbbu ko ci waa Baara ko gën a foofu noonu mooy bas bari bagage bas polyvalent yaa ah mais bas lii lan la lii après des na benn aar lu la mooy ban ci kanam mooy maam yi mm-hmm. buggaan mën naa tag sëriñam bi mm-hmm. maam Matar Ndumbe mm-hmm. sëriñ kokk dagee sax moo jur ndaag mu jur ma sàmm kat ndaag waaw mu jur sëriñ moor ñaan da mu jur soxna loo jóob mu jur sëñ Mbàkke soxna loo maanaam sëñ Mbàkke soxna loo kokki génn fa benn yoon te ko baax ak ku jàng alxuraan kokki nga dëkk njaga ci jum mataar ma ci kokki masamba gàdd ndaag ndaag ak mareem ak pend bu ya xarima ma amante laa seen yaay soxna loo jóob la yaayam tudd loolu histoire la Bougane Gueye mhm. nga bëgg rek a jërë bëgg. PDG waaw. ki nga gëm soxna loo borom taay fak bàyyi laa Cheikh Magui doon daa silvisé woon ba nga xam ni. Mhm. Marrakech daanaka li mu koy sox sax ci suuf bariwul. moo njëkk a génne palmaan teg ci lu weex nit ñi di ko di ko di ko utiliser. kooku nam civilisé woon esprit compétence expérience intelligence fekk na baax kër maamam ci juddu jom daraja kër maamam duñu gàtt ci alxuraan fir Mbàkke soxna loo waaye bu demel doon lii di ñëw duñu daw ak xë jëmu leen charia jëmu leen maamam tar ndumbe maamam sëñ Mbàkke Soxna Lo moom la jox soxna faaxut ja moom ci Masamba faaxut ja meddu faaxut ja balla faaxut ja jox ko soxna pend buy maam cant dikki ak meddu penda nekk mi ci jumma am ci ko Masamba ganda mooy mbokkum Sénégal sëñ Mbàkke Soxna Lo borom tay fa bëgg la eh bugaan bu ragal waaw fat ku mu fat hmm. doo fa naan bêtise eh, dangaa doy waar mais bas dangaa doy waar naka nga mën a dundee lii ak waa yi nañ la mën a supporter bas hmm? bas yow ci kan ngay inspiré woo ak yow ci kan nga xool parce que kenn ku nekk am nga am nga kii nu mu tudd ci am nga référence yow lu tax nekk historien comme yow ni nga ko defee sànq lu tax nga taamu bool laaj nga lu ma neex nga xam histoire maanaam way ni mu amee mbaar ak mbëfër ak mbépp hmm. mbaa xam nga ne taasu am na ko hmm. fii bari na ñu fi si lool sabootewum it taasu mais billaahi li may wax xoolu xooluma leen sax ci yoon ñu ànd. parce que sëñ bari nañu si yow génn taasu. ay comme ñàkk. du du du ko def. ah da ngay ah, tooñ taasu ah, parce que taasu kat bi waaw damay indi référence ba pare wan ne lan lan mooy taasu. léegi nag tey laa leeral taasu kebatu. ñoom bas cu kebatu par exemple mooy ah. ñëw ci xew. ana ñu ko bëgg daam seen ana ñu ko bëgg ñoo ngi nii ana ñu ko bëgg mu bàyyi. dafa am lu ma lay leeral te digloo ma. kebatu ak taasu laa lay leeral tey. nga xam ne école a ngi nii toog man damay tëdd di bind. di xalaat man. say texte danga koy bind. di xalaat. lii ma wax léegi suñu bàkki soxna loolu. moo dama ko dond ji wallaahi yebbu ma leen. waaw bas ma di bagage ak nii xale baa la. te bu ma paree mën naa koo ci keneen ku suñu bàkki soxna loolu sëriñ boo ma dugal ci njabootu sëñ Tuubaa la ko commencé sëñ Modou Moustapha hmm. naa leen a way hmm. ah da ngay laaj wala da bëgg a xam. léegi li ma la laaj noonu. sëñ Modou Moustapha ba ci sëñ Moutala kay jeex na ma ñëw sëñ Fallou Fallou Bousso Baare mi ci kàddu gi bas mbéru ma dum numbe soxna de dëkk soxna bu sa saar soxna mati sànq mu juri soxna mati nag mu juri soxna wa Bousso mu juri sëriñ Fallou borom kasoro jot gi waa ji ñëw di def di dindi ku réer mu gindi bàyyi sëriñ Abdou Fata ak sëriñ Baara mi ni jooy te noppeeguñu ku bañ jëfam bu dox un mètre Touba loo bëgg a laaja dama ne damaa bëgg nga wax ma yow fi nga teg sa bët fi ma teg sa bët kii tax yow ngay bëgg aar bi di ci avancé di ci foncé loolu laa bëgg nga wax ma ko comme yow nee nga ñi fi nekk yow xooloo leen sax la nga wax ba ma tudd tur du ma ko def. tuddloo ma la tur mais nga wax ñu exactement. léegi man samay référence su ma neexee tudd leen. waaw ci mel ne Ndeye Absa Assis. Baye Ndiaye tas. waaw waaw a wax. moom dëkkul Kaolack. peut-être. kooku du kebatu kat taasu kan la taasu kat ak kebatu bokkuñu. kebatu laa ah. waaw maa ngi ñëw ay waay di lu ma damaa jigéen ñi dama ñëw ci góor ñi. kebatu mooy nga fekk aw xew rek ana ñu ko bëgg ñoo ngi nii. waxuñu loolu bar loolu waxuñu Assis. waaw Papa Ndiaye coppet dafa ko mën a wax ngi mm, moor bi taasu bi ne ci xew yi xam moor men yaa ngi dégg bu dee bu dee bu dee jigéen ñi ndayab sa siis non góor ñi waaw ah, góor ñi moom ñu ko dëgg yàlla ñooñ ñooñ la moom pourtant comme ni ma koy yeewee nii ñoom foofu lañ koy teg ah, léegi jigéen ba ñi mën a tuddal ñii nan raas na taasukat yépp ñëw ci Sénégal ñii toog bu ñooñu taasu leen xam ci at ci at mi at mi ba mu jeex ñooñu ñaari taasu la ñuy wax ñu ñibbi mm, ñee nag mën nañoo maanaam déggoo li ma la wax xanaa ma la limal waaw bari na mais moom nee na référence nee na ñooñu. ñi mën ñi mën boo leen indi nee na moom. ñenn ñi ci taasukat yi. boo leen indee maanaam buñ la taasulee ñaari taasu seen répertoire jeex mais ñim la limal ñooñu mën nañoo yendoo ak yow di taasoo ak yow guddi. ba te lu ñu wax duñ ci jaaraat ndey am sa si ma la wax c'est à mort duñ ay nit Papa Ndiaye coppe. Mm-hmm. ñii duñ ay nit duñ xamul tax nu xamul na moo tax ma la loolu. waaye ni mu a mbaar ak mbëfër ak mbëpp noonu la taasu amee mbaar ak mbëfër ak mbëpp. d'accord. kee xam na li may wax sama sama xarit bee di Lamine Baye nga xam ni mm-hmm. heure bu mu ñëwee Dakar mm-hmm. ak ñoom Pape mii Modou fay bu fay ñoom laay àndal ñoom xam na li may wax sànq dafa génn dama génne sama benn son rek ba ma kafantu nii mu ne ngi waat ni fii son yaa ngi génn bis du digloo ci temps su kay. mosoo dugg studio. déedéet waaye nag suñu borom yi nga may dem di def lii may def. ñoom du ma tëgg nag waaye bu ma demee dem comme ni ma doon def léegi tàggaate bi. Mm. damay sinap di tàggaate samay set ñu bari. comme su sawar. nee naa la sëñ Maodo Moussa ba ci sëñ Moutala mën naa leen natt. Serigne Saliou Fat Diakhaté ma jël liggéey bu rafet ba sëñ Bamba bi mu ñëwee askan wi sell la doon set muy mbaakul kër maamam dafa jël Serigne Saliou am fa taayaratu ak Abdul Xudos ak Abdul Baaxe yàlla weddi mu am Serigne Saliou sëñ Bamba dañu woon sëñ Saliou commencé ak moom jamono doo doo dem sawara ku fekk jamono soxna jeg si la ma ci liggéey bu rafet ba moo du assu jaxate lañ ko jox moom fa soxna assu jaxate soxna faat jaxate soxna mariama jaxate jaxate soxna jang balla soxna jang mbàkke soxna jang abdourahman soxna la seen yaay libaas jóor si la libaas far si la libaas matar a libaas libaas ma paate ndumee jang càmmiñal ku ma daaru ma paate ak ma ñaarom sa liyaas njaay benn gën ci cheikh abdoulaye ayul ba amadou sule bàyyam ak meewunu bàyyu sëriñ moom soxna faat Faati si di sama waa ji ballay sa buri sëñ Mbàkke maaram xaadimu ci taa yu baax yi ki nga xam ni daa jël titre foncé dëkk ak ay baayam sëriñ dan baayam sëriñ si di baayam Cheikh Moussa Abdoulaye mi ci 30 baayam soxna Faati si di jàmbaar jooju di sama xarit am personnalité am maana am classe ku ko yeb da nga ko fekk muy nelaw te am na nu muy nelawee doo ko yeb muy soxna Fatou Sidi moom sëñ Sidi maa ngi ko nuyu di profité ci occasion bi di nuyu kii xam na li may wax màggal ga ñoo fa nekk ndowoon mu def fa nag ay jàng xasida muuru waaw di def lu baax sama doomu day ngi nii man dama ko bëgg man man dama ko bëgg man waaw moo may rey beneen bi groupe whatsapp bu soxna Fatou Seydi Baye Mor Thioune a ngi ci Modou Fall macha allah ñoom daam daam daam sàmm ñoom ñëpp Baye Mor Thioune jiite ko. kon yàlla ñëpp am jàmm daal. groupe whatsapp sànq Mbaye ci ci ci Serigne Saliou mais moom dafa jeg saa génn Serigne Saliou daal dugg si Abdoulaye. Hmm. mais dara mu bëgg mu delluwaat ci Serigne Saliou. Serigne Saliou borom ndookaa borom jurul borom jàpp ndal. Hmm. sangub Seex Béthio mi ni jooytu noppeeguñu. Hmm. Serigne Saliou Fatou ma ci liggéey bu rafet bi nga xam ne dañu woon jox leen ma xale ma def ci ñoom la Serigne Bamba defoon ca mag ña ki nu moom ki daan gis balaa dina ko fegal sëriñ Saaliw askan wu mus sa lekk moyal sëñ Bamba bi ñëwee da doon seet askan wi mus a lekk moyal bi mu ci duggee mbaakol ci la jël soxna Faat jël loxoom teg ko ci bopp bi ni kii di kenn mënut a dindi ci moom dara ndax soxna su mus sa lekk moyal a ngi nii nga xam ne kooku moyal maanaam maanaam jàmm yàlla rek la xamoon soxna Faat Jaxate alxuraan di xaritam mbaakol li ma la wax léegi duñ gàtt ci alxuraan du ci gàtt waaye bu demee doon lii di ñëw duñu daw fi ñu depp fi ñu toog mm. ndax seen jom daraja esprit compétence expérience Serigne Saliou bàyyi Serigne Cheikh Saliou bàyyi Soxna Waalo maami weli Soxna weli Kebe. yow yow traditionnel nga waroon pire et dur maa ngi ci dama ko aar yëpp laa boole. moom lañ la bëri ma la wax boo ma woo ma kaay tagg ma léegi ma xam say maam ma def na trois morceaux bu baax lii ma sol. ak kii si xanaa yi ngay def xanaa ci kii bi la yem ci cadre Mouride la yem dem si ren tarixa yi. ah waaw waaw waaw waaw man nag wax dëgg yàlla. xamal lan mooy problème foofu dinaa ko maîtriser ndax man sama maam Matar Fall yàlla na ko yàlla yërëm ndaanan boobu sëñ Modou Moussa ko rëddal kër ak sëñ Cheikh sama bàyyi sëñ Moussa Basirou man murid rek laa ma defar moom moom laa bëgg ku may waxtaane ku dul waa kër ah, ba ma ma daal man moom wax tuuti ambiance lu bari may ma tuuti may ma dara yaa yow feccoo su ma nee. jeeg ji nii tiitaro. galam lim bi mu bàkkoo soxna ma fàtti mbàkke bàlli si buri sëñ mbàkke ci daaw yu baax léegi ki nu way léegi. kooku aji ndooy Jóob la ñuy woowee yaayam. Hmm. baali def katu lu baax boobu xam lu baax te di ko def borom ñaar fukki junni ci man. borom ñeent fukki junni ci man mbaa mbay mbaa xam nga leen ki may way léegi nii. waaw bis boo toogatee tele fii di ko tudd. baali man maa lay wool sama bopp. Hmm. ni la baali ne na. 200 hmm. ngi nii wala nangam ngi nii. Louga ah, mën naa ko barke Serigne Fallou. mën naa ko tudd tey ñu jaaxaan dee ko saxal baali jàng aji ndooy Jóob baali tudd naa la tudd naa ko baali jàng tudd naa la foo toogati. waaw boole maag bas bas Baali Jang aji ndooy Diop. foo toogati nay saf man maa la wax léegi du maa ngi ak sa numéro orange mu nekk lépp ngi fi. mais jox xam lu baaxam nga noonu waxal ci moom bàkk leen ko. Baali Jang Baali Jang moom aji ndooy Diop def ko baax bi waaye nag. mu ne la 200 nga d'accord yow. man maa la ko loolu. waaw waaye maam kan satu bëdaloo boobu si ko jukku mbaa gay del faa loo fas waa nga ndaam daara yaa nga ndaam alxuraan jaa nga ndaam sa bagay sa ma fa gay del gay del mu maam daam ko ju jub ak madun bay ko ju jigéen sunu xarit def ka lu baax boobu ah, ki nga xam ni moo tax ma miin Ndakaaru eh du ma ragal naa 400000 la bas na leer 400000 waa waaw lii moom 400000 la. li ma la wax nii xam nga man Serigne Bamba laa yaakaar. waaw danañ toog ñu toogaat plateau nga ni bas la nga waxoon am na kenn du ki ma la wax loo. man maa la ko wax. Hmm. ma fi du ma ko amul baalim aji ndooyee jàng. léegi yow bas ma bëggoon xam exactement est-ce que nit lay woo seen événement comme tey nga am ma xew a mariage am wala ngénteem wala comme ni ñu koy defee ak ñeneen ñi ku ci mel ne ay ñoom Vienna wala nangam ñoom dañ naan nit da leen di woo pour ñu dem seen événement est-ce lay woo. waaw man ñu ngi may woo kay ñu may woo bu baax di ñu may woo ci langue mara yi. Mm. lu foofu laay dugg comme histoire bi ma doon def nii. Mm. Touba loolu damay def loolu. non non non non. Mm. loolu aar bi dàqu ko. loolu mën ngaa taxaw ak sa géer léegi waaye ko fi mu bokk pa tëgg pa dara sinab ko wax ko lu baax tàggaate léegi mu daanu may la oto wala mu may la kër wala mu wala mu jox la. léegi dama lay parce que moom su bëgg bien matériel xam nga woo. donc moo gën a nooy bas ki nga nekk noonu maanaam jéem a ñoom seen histoire c'est-à-dire seen papa yi seen yaay yi seen maam yooyu boo ñëwee tagg genre tagg lay nekk quoi xam en général comme Alsane mbay genre yooyu lay def. alsaan bu dee ci wàllum côté histoire. waaw naa jël référence alsaan bay. waaw comme noonu dama koy def encore maanaam li ma wax ci hmm. ma woowee ci mili mili mili tàggaate ma dem. Hmm. su ma ci mili taas bool ma dem. Hmm. lu ma woo ma dem. mais nag man man jaay naa umu. jaay nga umu. yow sama aar fi bi député waaw. asalaamaaleykum. maaleykum salaam jaay naa umu. waaw. def naa promotion. def ngeen lu maa ngi maa ngi bitu soxna may ah, na àggale àggale point bi nga di ko dégg. dégg loolu ak fi réew mi àggale ak fi réew mi toll maa ngi actuellement nii bi dugg soxna may galas ay tissu laay jaay heure bu ma xëyee fa laay dem. yow mii waaw gëm sama bopp waaw. ose maanaam maanaam daal bas bari bagage ci boobu tur yi da ko indi. Mm. maanaam lu ne def naa ko ba mu des teg fi. mooy jël waa jël as kenn rek moo bañ koo ko yëg koy faral di wax kenn kese àdduna ba mu daj mooy sàcc bi. xanaa bi ngay jaay omo da nga daan boole daan taasoon. lépp laay def ci biir muy neex man àndaan daan ànd ak tànday Ami Touré ndeysaan sama mère bu baax may ànd ak moom mu may teete. Mhm. may jaay omo def naa promotion maa ngi gudd soxna may galas. Mhm. léegi nag yooyu ñu ni léegi nag ñu dem ba sama benn xarit jekki dugg ci jël gàddu sa bool. déedéet. xam nga man déggoo li ma la wax bi jaaj man doomu géwél laa may jàng maa ngi defantu aar waaye nag man may def avant may feeñal sama aar géwél laa woon nan la feeñee noo ko feeñalee kañ mooy première fois bi nga xam ne ma nekkee école daan ko feeñal hmm. waaw mais nag woon fes ba ëpp boobu walaa njëkkee fi ni nii dem naa maa ngi sant yàlla ñu ngi may woo bu baax ci langue yu riis may am nit ñu baax comme li ma la ko waxee léegi ma doon lim sama nit émission bi du jeex macha allah te ay suñ sët suñu bàmb rek ma bëgg na hmm. ibu bas a ngi nii kii bas bëri bagage bas xam nga doon naa dégg nga naan ma bas bëri bagage moo war a ñëw ci kër gi. waaye sànq dama nekk ci waañ beeg yooyu. Mm-hmm. dégg ma fa kalla ambiance bi jooy li man pour man sax orchestre la fi teg ak yu ni bëggoon naa xam moom. Mm-hmm. day taasu nii di kebatu wala maanaam dafa ci musique bi la dugg wala maanaam day dem ci ñi nga xam ne nii ñoo mooy ñu baax ñi rek leen waxal yu baax ñu koy jox. waaw maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay delloo yow ndeysaan dama lay ku baax nga. da ngay reetaan loo àdduna. yàlla sa waaw waaw yàlla sa yàlla sa jàmm ak man mii léegi leen ma béppee ni ma yaa ngi ñëw. man it waaw ah, ndeysaan maanaam man maa ngi orkes mm-hmm. soo bëggee tey boo ma wooyee bëgg ma wooyee la jàkkaarloo. Mm-hmm. wala lu man di doon. Mm-hmm. soo ma wooyee gars yi ma àndal ñooy ñooy samay tëggkat. Ah. kee mooy sama kat Lamine Mbaye di ku baax. ku ñàkk ñaan. paa ba nga noonu gars yu baax yii lu ma am dakaar mën naa ni ñoom yàlla ak ñooma mm-hmm. boo ma woowee ci paan ak bool ma fekk si la ci mm-hmm. boo ma woowee ci ñëw taxaw wax noonu waxal la say maam ma fekk si la ci mooy polyvalent gi boo ma woowee ci maanaam bis boo xam ne baara mbay kese la maanaam amul amul wax amul dara da ngay ba boo ñëwee da ngay baara mbay ba bis bi jeex ma ñëw di baara mbay ba bis bi jeex ma ñibbi mais yow baara mbay rek nga mën xanaa yow di ay waay nag yow non sànq dégg naa mu yëkkati air boo xam ne nii ak xaw ko. baara mbay moo ko dafa mel ni maanaam sama xel bépp dafa dellu ci. déet question bi nga ma la ajaat moo jaaxal nee naa la man polyvalent la ci aar wax la li may dégg lépp. nga ne ma ndax baara mbay rek nga ma. après baara mbay ban nga mën a ceeb jën wala la. ah pour maanaam wàllum fecc mi daal. waaw waaw wàllum fecc moom rek boo naa ci man ak ay ñoom ràmbal ak yooyu waaye nag damaa diis fi ni nii mënatuma loolu ma yëngu sax. macha allah non non déedéet du ma simbal non man aw bi ma waaw aw simbal man maa dugg man maa foofu ci ci ci ci ci baara mbay. Ah, loolu loolu jamono ji ñuy woy simbal. Ah. lañ ko daan woyal euh, gaynde bu jigéen gi. mu daan dugg si ñu ñu ñu ñu woyal ko. ñu ñu daan ko woyal baara mbay. ñu daan ko wax naan. bakkata bakkata.

taali nga man ko yaay taasu moom mooy way waaw waaw ah, yéen ñaar kañ ngeen lan moo leen boole moom Dakar la dëkk moom Dakar la dëkk Mbàkke nan ngeen def ba gisee ba xamante ànd ak créer seen orchestre ak yooyu noonu dafa daan ñëw foofu di ma fekk am na fa ay ay doomu nijaay am ay rek ak yëpp def bongo far yàlla ñu daan taje moom nag dafa ñàkk ci ñaan parce que bi ma njëkkee gis bi ma nee der dañuy wax kii kan la mm-hmm. noos ci man fekk booba xamagu moom loolu bokk ñu dem ba ci biir mbokk feeñ muy ñëw Mbàkke dama fekk ma ko yóbbu programme di ko booleeg ñu baax may ñëw fii di ko fekk ma yóbbu programme di ma booleeg ñu baax ñàkk ki ñaan moom moom waaw moom ak fuuf mhm. waaye lu ne laa koy wax mhm. lu ne ci àdduna maa moom bu naan da nga naan ñi du ñaar ñi du nekk nii da lu ne la ñuy wax dafa jàgg ñëwaat mhm. waaw yàlla jàmm yàgg macha allah ku baax waaw ci ci ci moom ci xeetu ni muy taasoo dafa wute ak ñu bëri waaw parce que am na ñoo xam ne bu ñuy taas dañ koy xaw a dëgër ki mais moom da koy ubbi. xanaa baa nga xam nga énergie bi loolu lan la de maanaam da koy ŋàppi da koy ubbi daal sa taasu teg ci temps. loolu loolu. <laughs> loolu ko waral mooy. <laughs> li ko waral mooy maanaam. Hmm. Euh, comme li ma la wax rek doon doon daanaan bi. Hmm. juddoo ci géwél yaroo ci màgge ci aw ma daray aw ma daray lu doon géwél ay la loolu yëpp aa jaf jaala sama maam rek di nuyu sama yaay di profité ci occasion bi nag di nuyu sama jeeg ba ci kër ga du sama jabar waaye sama jabaru mag la muy faat kase mm-hmm. yaayu nda yàlla mu ndaw di ko baax man mm-hmm. a ceeb lool di ma defal yu baax yaru lool nag mm-hmm. duma ma luqi si bët. sudul ni ma yollu. yàlla jaamam yàgg. koo koy soxna si waaw di nuyu sama yaay mel nga basé Mbàkke léegi bu fekkee am na ñoo xam ne dañoo nekk ci réew mi fii nii ci Dakar fii nii bëggoon maanaam nga tëggal leen seen xew ak yooy ak yooyu da ngay mën a déplacé wu ñëw. bu baax a baax man du ma jóg fii maa ngi HLM gi. Hmm. tey sax jur fii laay fanaan salaam Diallo sax. au passage ma nuyuwaale ko ku baax ku ñàkk ki ñaan ku mën a lancer ay jeune talent. maa ngi Nirvana gee dama fa daan joué. yow dafa mel ni salaam di taasoo noonu ngay taasoo. waaw dama fa daan dama fa man man la bëgg ci salaam fi ni nii bu bu ma nekk da bu ma nee der masaan a fekk Arma Ndiaye bu may taasu day bàyyi li muy def lépp ñëw aw ma daan kii dund affaire yooyu. waaw di ci nuyuwaale Mariasin may sa bige may xale bi téye musique bi pañu ko. damay faral di wax ne buñ di tëkkale buñ di dendale ndax bu ñuy tëkkale ñaar am na ko man. coonay sa baay mën a way doon daanaan jaaga sa yaay yàqul liggéey bi benn yoon sa kër baay mm-hmm. dama ni la ku lay indi fande danga reer ba desel moo mm-hmm. doog a reer yaa xew ci jamono de xaar pour dugg studio yoo tamit génnee single comme sa morom yi ba ci pourquoi pas album maa ngi ci mm. li fii nii yeeg ci xew yi mm-hmm. xaajul sax bay bokk li ma a kii nag liy ñu naan ko bari bagage. Ah, waaw ku bari bagage man fi ni nii am na yoo xam ne am na yoo xam ne bàyyi naa ko kër gi sax bagage yëpp naa la ma ko de am na yu nekk sama batan ah, yii ci armoire bi yi samay daal. ah am na yu ma dugal ci biir nii gis nga. yëpp ay bagage yëpp ay bagage bool beeg yooyu yëpp bagage yi am na yu ma teg noonu ci fauteuil bi. léegi la soxloon comme par exemple ci ay xew fu mu mënti nekk ci réew mi bu la woowee di ko wuyu ji. bu baax ci ban numéro la lay woowee. da ngay def 76 rek ngay def. 76. 481. 86 50. 76 481. 86 50 numéro bas bari bakaas orange bi nag dafa wadd fan yii. Hmm. waaw xam nga yëfi géwél ma jógee xew hmm, a seetaan hmm. sa événement sa xew ak lu mu mënti ah, ah? déggoo li ma la wax. pour de famille ngénte yi. man daal lenn rek laa fi bàyyi dëj. dëj moom du ma bu ma kenn woo. la ci woo. déggoo li ma la wax. nee na ndax di nga tëgg soirée maanaam. Euh, soirée yoo xam ne gars yi duñ ko biral ci kaw. duñ ko biral duñ ko filmer dañ koy jël rek parce que yooyu tamit bokk na ci yi may xaalis fan yi yii man yooyu doxuma ci. Ah! Mm, mm, doxuma ci yooyu. Ah, ah, soirée ci ndaanaan naa <laughs> man xam nga yéen soirée laay tëdd. yu mel ne lamp yi ngeen taal. comme midi heure midi ni muy mel. mais am na ñoo xam ne dañuy faral. caméra yi tàkkusaan daxilu tàkkusaan yi doo ko tëgg. waaw au pas. au au passage. waaw law tur bu dee tur lawbe yi boobu leer na la maanaam xam nga bu ñu nee. bu ñu nee soirée privée mooy am na ñoo xam ne tey ay ki ay ay kilifa lañ. comprendre bëgg nañoo gis nañ benn bas bëri base bëgg nañ ko bëgg nañ ko invité waaye bëgguñu tamit caméra am fa wala filmé ak yooyu. non man bu dee man bu dee bu man bu dee ñooñu moom ñi may man. ñu baax la man dëgg yàlla ñoom bëgguñu yooyu. Hmm. waaye waaw. yow daal soirée privée. ñoom bëgguñu man soirée lu may man xa déggule ma la wax sama lépp leer xoolal weex laa. soxla lépp public lépp public yow daal ko moom dégguma de. waaw mais daxinu tàkkusaani. Hmm. daxinu tàkkusaani. parce que lawbe yi. Hmm. Euh, ku ci mel ne Mam Penda. ak bu yaay li rek Mam Penda lawbe yi dañ maa bëgg mbaa xam nga loolu. Hmm. mbaa ràcc nga daxin am nga gànnu lawbe te ñoo ngi dikk. Sénégal fu la Thank you. instant bi sonn nañ ambiance bi neex na kër gi wàccee nga ko lan la ñuy laa fi mu toll mooy li nga xam ne moom pour nga tëjee ko mooy yow parce que instant bi lan ngay waajal yaa ngi si yan projet lan moo nekk ci sa kanam waa instant bi nag studio laay dugg waaye studio boobu ki ci dimbali nag dinaa ko wax nag wax dëgg yàlla hmm. dinaa sàcc wax ko soxna moom i kebe moom juga kebe soxna moom it. jàmbaar a ngi noonu. macha allah kooku dama ne ko juróom ñu mel ni yow bu na amoon ci Sénégal. Mm-hmm. réew mi léegi lépp baax. Mm-hmm. kooku ni muy tëral doomu aadama sa xëpp na. Mm-hmm. kooku kenn du moom Juga Kebe la ni wooye baayam. waaye Mbaalu Kebe la baayam tudd. Anta Samb la yaayam tudd. mbokk baayu Mariam Kebe. bi may dimbali. moomi Kebe macha allah waaye nag ah macha allah baara maam moor yàqu ci dara nag ku dem mu yaatal la. moom it kebe nuy naa la mm. mi ngi ci loolu di ma waajal. au passage. Mm-hmm. ak Afe Diaw moom it taalibe Sëñ Abdou Karim boobu nga xam ni kenn demul ba ko. Mm-hmm. waaye soxna Bintu bi mi mooy léegi nag ku dem kër Sëñ Abdou Karim. Mm-hmm. xam ne moom at yaay mooy def lu baax. moo mën a dimbalee soxna Bintu bi. am classe am maanaam am personnalité bëgg bopp. am classe man du ma la ko nëbb géer ñi nit ñee ma bëgg moo tax man la gis nga liste bi muy indaal su ma ñooñu ñëpp ma tuddal dan may defal waaye maa ngi waaj loo xam ne bis bu génn. Mm. ab single la Sénégal jëm mm. Sénégal day day. waaw léegi ba ci biir single boobu noonu. xam naa liste bi nga yore fii moom ci biir single boobu bu fekkee single bi moom nga def liste bi ñoom ñëpp buñ la daralee nga tekki. liste bi nga yore déggoo li ma wax dama ne. Mm. li may waaj génne bu ma ko génnee kuy taasukat da nga toog déglu. ah. kuy taasukat ci réew mi na leer. waxal ak ñoom ñu ngi nii taasukat yaa ngi nii di seetaan. kuy taasukat li may waaj génne bu ma ko génnee dama eh. mais yi laay waxal waaw. kenn du man ci réew mi. wax na de. dama ne mbay man na leer. wax na li may waaj génne bu ma ko génnee dama ne la ku taasu ko da nga tooñ. yéen taasukat yi waaw yéen taasukat yi. am nan problème. taasukat am ngeen sérieux problème. bas bari bagage mi ngi nii boobu ba léegi nekk ci roqam bañ a génne single bas nee na mi ngi seen kaw yéen taasukat yi yéen a gën a xam seen bopp bas a ngi nii bas da ngeen di taxaw wax. yow kay affronté. kii boot gaynde ah. ki ko nampal ci gën a ñeme yow ki ko boot ndax ki ko nampal eh. doga tara ñeme ay waay <laughs> mu yéenam kundaasuka eh, lemal sa kaaka nga kaay di luma su ma duggee studio ba génne li may waaj a génne ah. ngeen dem fële waaw waaw ki boot gaynde gi ak ki ko nampal ku ci gën a ñeme yow ki ko boot ba ki ko nampal doga tara ñeme <laughs> ay waay ay te ñëwal bége xoolal mi géwal bas bari bagaas ci rib nga niil da ko juddu wale sëriñ ko bindi kiddi mu bala Sénégal nan ma soo bokku baay li ko waral xoolal balay sa buri sëñ Mbàkke maaram xaadimi ci yu baax waaye wax leen sa bu sëriñ Bamba su ko si